waaw waaw waaw maa maa ngi nuyoo di nuyu xale yi nga xam ni bii macha allah ñooy jàppale Maodo Malick Mbaye organ Maodo organiser lii ñu ja ñu taxaw ci am ci taxawaay bu rafet maa ngi ciy jéetal booga ak ak dal ak ñi ma àndal ñëpp di ci kontaan Maodo Malick Mbaye nag moom Maodo Malick Mbaye nag moom bu ñuy wax ci moom duñu tàyyi duñu sonn ndax Maodo Malick Mbaye macha allah ku ne xam na ni tey Thiès am na lu fi judd am na lu fi xew. macha allah am na lu fi màgg muy Maodo Malick Mbaye muy nit ku baax def lu baax sëñ Touba xewle mu am taxawaay bu rëy def fi lu rëy tubaarkàlla du moom rek moo nekk Thiès waaye lii mu def lu am solo la waa Thiès gépp gis ci seen bopp dañuy ñaan yàlla nag fii mu ko defee ren bu déwénee mu rey fi ay nag ndax Maodo Malick Mbaye bàyyiwul ba Macky Sall fa lu mu door def lu baax dafa def lu baax ba mu amul benn ndomba tànk di def lu baax ci dëkk bi di def social. ay kaar joxe na ko joxe na ay paas man ñi jàppale na leen tubarkalla def na lu baax Maodo Malick Mbaye bu ñuy wax ci moom du jeex dañuy ñaan yàlla yàlla may ko fan gudd jàppale ko ba li mu bëggal Thiès mu am ko yàlla may ko fi ndomba tànk bu gën foor boo xam ni bi dinañ xam ne bi Thiès am na lu fi juddu am na lu fi màgg macha allah ca daal am na lu fi ne loo xam ne li daal képp kuy doomi Thiès tey ji kontaan nga ñiy dem Touba kontaan nañu ñii nekk ci dëkk bi kontaan nañu waa dëkk bi kontaan nañu xale yi nga xam ne bii Maodo Malick Mbaye fayu leen dara ñoo am seen taxawaay am seen ngëm-ngëm taxaw lii taxaw bii ñu taxaw depuis huit heures ba tey ñuy joxe ndox di joxe kafe vraiment kenn mun leen a fay Maodo Malick Mbaye kenn mënu koo fay Cees a ko ñor askan wee ko ñor social ci lay dox ñuy ñaan yàlla li mu bëgg Cees yàlla may ko ko loolu rek amoon lu ma ciy wax kontaan nañu di ñaanal xale yi yàlla may leen fan wu may leen doole may leen kàttan ba ñu gën a am taxawaay bu gën bu ëpp bi maa ngi sant ñëpp. li ma wax baax na. rafet na maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Thiès waa Sénégal euh, dafa fekk sax mënu maa bañ a wax si bis bi parce que bisi Serigne Touba bi nga xamante ni nii màggal la goo xamante ni waxuma jullit waaye képp kuy doomu aadama rek di dund màggal ko dalaa war ñun waa mouvement citoyen gëm sa bopp doon ay ndaw ñu xalaatoon si bis bii liggéey si Serigne Touba séddale si ay benn comme ni mu ko waxee commencé ko si café bàyyi wuñu mburu bàyyi wuñu ndox bàyyi wuñu dara ñu amoon xalaat bu rafet wax suñu njiit muy Maodo Malick Mbaye biñ ko ko waxee wax dëgg yàlla suñu njot fu mu yeggoon dépassé na loolu ndax lépp loo xamante ni nii yaakaaroon nañ ko si bis bi tey ji nii suñ ko amee ginnaaw yàlla moom la ndax bu fekkee laaj nañ ko dërëm jox nañu fukki dërëm yàlla dogal si bisam tey ñu rassemble plus de 300 jeunes yoo xamante ni nii ñëpp si mouvement bi lañu bokk am na ñoo xamante ni bokkuñ si mouvement bi tey nii may waxee ak am na ñoo xamante ni nii geste bii nga xamante ni Maodo Malick bay def na ko da leen a ba nga xamante ni nii jox nañ ma seen i ni ma dinañu ànd ak moom te lii aussi c'est pas la première fois fois lépp loo jeunesse Thiessois di def dañ si gis Maodo Malick Mbaye wax ko nag taxul du dañ koy gërëm du dara mais moom moo ko def ñu wax ko bu ko keneen defoon dañ koy wax mais chaque jour intérêt Thiès si lay dox lépp lu ñoro Thiès moom lay def tey jii ñu nekk si màggal mu ne nañ leen ànd ñu màggal Serigne Touba jàppale ko si bis bi moom si jëmmi boppam wax dëgg yàlla tey si ay 10 heures bi ma woowee dani ma boo ma ne ko ah mun ma ba dara manqué wul ma ne ko déedéet mu ni ma lu manqué wax le ma ko ma dolli ndax liggéey Serigne Touba jar na lu ne bu ñu xamoon nu mu toll man tey lu ma si waay waa laaj dinaa la ko jox bi si ndigalam ñu nekk si boobu ba léegi wax dëgg yàlla amuñu dara loo xamante ni nii ñu ngi ko siy regretté ñun ñëpp maa ñu ngi gërëm ñëpp gërëm gi nag wax dëgg yàlla du ñu gërëm jeunes yi kese ndax dañoo nekk ak suñuy mag yoo xamante ni dañ leen a fekk si mouvement bi boobu ba léegi ñuy dox si seeni ndigal ñu ñuy jàppale du ñu jàppale bi ñu amee xalaat bi tamit li tax ñu am sañ-sañu def ko ñoom ñoo ñu may sañ bi wax ko Maodo Maodo ñëw ni ay ca kaa lañ si taxaw ñu taxaw si ba bis bi tey liñ si bëggoon wax dëgg yàlla même bu ñu amul 100 pour cent am nañ 99 pour cent ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaan nit ñi ñu màggal si jàmm ya Serigne Touba nangul leen ko si jàmm ñu ñibbisi si jàmm ñu bokk ko ñun ñëpp wasalaam. a ah, ñu nekkal il faut que ñu gërëm ko ndax si 6 heures du matin ba nii may wax ak yow mi ngi nekk ak ñun nekk si fa taal bi di togg café yi di jox ñëpp. te wax dëgg yàlla mënoon na ko see bañ a fekk mais boo waxee mu ni si li ngeen nekk rek si laa nekk kon mi maire suñu ñun yaay suñu yaay ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ak ñëpp ñoo xamante ni ñii ñu ngi si mbootaay bi ñu ngi si euh, mouvement bi wasalaam voilà ah, mooy nekk futur maire Thiès zone est ah bu ko jaree sax ñu jël maire zone bi yëpp lépp pour Maodo kese. ci kaw ci kaw ci kaw li lépp nag màggal gee ko waral mais gëmal ni bu gàmmu jotee sax nii la ñuy mobilisé waatee pour Maodo Malick dégg nga ah eh, doon Maodo ci kaw ci kanam ki di down Maodo en haut. daa ma la gën a xamal mooy ndaw Thiès ñoo sonn tàllal Maodo Malick Mbaye loxo pour mu wàcc si le terrain eh. jàppale jeunes yi parce que jeunes yi sonn nañ Thiès ay mbalit kese la kenn mënu